nu ànd ak sunu jëwriñ muy sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mohamadul Fadil nu dikk tay fii teew fi sa kanam ak sa kanam jëwriñ yu tedd yu baax yi di sëriñ Bachiru Mbacke Abdul Xaadir liggéey bi nag eh, kuréelu Touba ca kanam am na yéenay def lépp am na yéene it ànd ko ak yow tey jii nu indi téeméeri million tàmbalee ko ci liggéey bi ak ndigal la nga xam ne jotoon nañ ko ci yow te moo di bu plan yi sottee ñu jël ci bâtiment boo xam ne dañ koy liggéey te ànd ak yow liggéey bi ba baa muy mat di ñaan nag nga ñaanal ñaanal nu gii ak mbooloo mi ba lépp lu ñuy liggéey ci yoon wi ci lislaam nu mën koo taxawe ba mu sëkk ba ku bàyyeeti ni def ci dara na doon yéene koo yiw am bañ a doon lot wala mu bañ a doon tële ngir bañ a guddal loolu moo doonoon kàddu yi. yéen yaa ngi waaye dakk ñu yàlla yàlla yàlla tamit gis yàq yi ñëpp dañ koy toog nga wax ma pësté bi ak jublu gi ak yéene ji ak sa jataay bii mel na ne xamewuma ko ndax dara bettu ma ci te it fu ngeen bëgg mu àgg fa da da da da ko weesu loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa moom laa am yaqin ba nga fa jataay bu njëkk ba ak bii xamee wu ma ko lii dara rëbbati ci te am naa yaqin tam ci ci kanam dan mën na ñàkk ñaan rek suñu borom sàmm leen yàggal leen wéral leen bu ngeen mën a nekk ci liggéey bii na ko yéenee loolu rek la ñuy ñaan waaye amul ci dara loo xam ne doon du bett sama sama sa am naa ci yàqin kon jataay bi njëkk ma leen nga toogoon ak man di ma ko wax ak jataay bii xam ne moom ndax dara bettu ma ci ñu fexee dimbali ba njaboot Sëñ Tuubaa gi ñu àndandoo dem ba ca fa ñuy teg fa ñuy tàmbali liggéey bi ñu teewandoo ko dara du dolli ci lu nag bu ñu demee ba bay bay yëkkati mool bi jiital ci ñaan bi la la may la may naan ñun ñëpp nan teewloo ñun ñëpp nan teewloo bu ñu teewloo di gën a jublu sëriñ bi teel rekk tax la cee dolli ko moo di bu ñu yeexalee suñu jaayante ba noppi li ci kanam liggéey bi sëriñ Tuubaa bii liggéey bi bii ñuy tàmbali da cee bokk waaye liggéey bi réy na yaatu na nanu ñaan liggéeyu sëriñ bi bii yàlla kattanal nu nun ñii fi teew nii kattanal nu ak ñeneen ñenuy wuutu ëllëg suñu moom kattanal leen ba ba ba bis ba sëriñ bi soxlaa jataay bii muy bis bu bis bis bisu bisu bisu daje ba rek kon ci barkib sëriñ bi ñi yor liggéey bii ñi nekk ñi fi teewee ñi ko teewee nii ak ñay ñëw ëllëg ñay ñëw ëllëg muy wéy liggéey bu mu laal suuf mukk nan ñaan bu mu laal suuf mukk lenn dong dong dong moo war a liggéey bi mooy yëkkati baatu bi sunu borom sëriñ bi ñëw leen yëngutam bépp léppam jàddul lépp mi ko def ci yëkkati baatu sunu borom ilaahu kalimatillahi al-ulya

nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al ulya loolu dong mooy liggéey bi loolu nag bis ba ci la jëm jëmul fer gis ba la jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan dong lan ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ak ñu mën wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw ñëwatu ñooñu yàlla kattan na leen la bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaaw kalimatillahi al-ulya ba bis bi ba bis bi waaw ba bis bi jiba fa sëñ Tuubaa di demoo ba bis bi jiba sa fa sëñ Tuubaa di demoo yàlla alhamdulilah yàlla nu yàlla boole ca na noonee foofee muy demoo yàlla nu si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ Tuubaa xolam biir ñooy jaa ngi bokk nga ci ñaan bi waaw ndam ndamam ndam ndama ëllëgam loolee yàlla nañ ci bokk waaye yàlla nañu gën a dimbali itam ban liggéey bi ñu liggéey bi ñu taawul ko ko ba bis biñ ci ba loolu rek la ci barkeem ci barkeem ci baaxam ci ngëneelam ci pàggutee fa mu nag ndax lépp pàggu na jërë ngeen jëf li safinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna li safinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna